Gaston Production présente. Gaston Production, le Don King de l'arène sénégalaise, organise un autre grand choc de rêve, le choc des chocs, le choc des titans. Attention, Balla Gaye 2, le lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2 ki doon na Double man Balla Gaye 2 ki ne woon man xaalisu làmb la ñu ma ngente ah mooy daje kan Gris Bordeaux ki doon le Tigre de Fass ki doon Mbaye Guèye ki doon Tafa Guèye ki doon Fass fa làmb soso mbokk di ci tëgg ndënd ba ndënd xar. salaamaaleykum mbokk internet Gaston Production ñu ngi leen nuyu di leen ziar kenn ku ne di nuyu aussi waa diaspora bi di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Serigne Diour ñoom tumaani ñu jàllale ko gars yëpp nuyu mun si aussi tey nag ñu nekk en route vers le 7 août incha allah si diggante Balla Gaye 2 ak Gris ñu war a jàkkaarloo seen revanche di dox si digganteem ak Gris Bordeaux premier combat Balla amoon ndam ci kaw Gris Bordeaux combat yi ñu am si ay combat spécial nag benn baa ngi nii taxaw sama wet kenn ki ñu koy wax tee max boo ko écurie Grand Yoff mbooloo mu war a bëreeg Ziza mu nekk écurie Laasana fële sa Pikine bii nag mooy doon combat boo xam combat la si biir combat yi muy ñaari ndaanaan yu war a daje ñaari mbër kaamil yu war a daje ñu war a xool ñoom ñaar nag kan moo si bàyyi moroom moom si ginnaaw avance dem si kaw sama droite ñi ngi am Tmax Tmax maa ngi lay ziar doom Malika. waaw ñu delloo ziar ñu ngi delloo ziar bu wér gannaaw bañ ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur xam nga di la nuyu di nuyu sama adversaire xam nga di ko ñaanal jàmm ba jour làmb ja di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégal am jàmm ah. di nuyu waa Grand Yoff waa Cité Marine Malika di nuyu waa yëmbal benn baraak maa ngi nuyu gaa yëpp daal di nuy sama gaa yi Pape Malick. nga xam ne moom laa waroon àndal fii mais dafa joobi quoi. Mm-hmm. waaw maa ngi nuyu moom waroon ànd mu joobi. ba mu fay jaarale nuyu waale Zarko ah doomu Grand Yoff boobu ma ñëw si waa Pikine borom 200 pour cent Pikine yi kooku la ñuy wax Ziza <laughs> keroog fekk naa ko sa 200 pour cent maa ngi lay nuyu di la ziyaare si loo ne. billahi mina shaytaani rajim bismillahi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi di sant suñu ñaari ñaari waajur. di leen sant suñ ñaari waajur bu baax di leen ñaanal wér gu a gudd fan sama maam Ngom mu génn àdduna barki dem yàlla na yàlla yokk leeram yàlla na yàlla am yërmandeem te yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe mm. waaw di sant bi ma jugee di sant waa Pikine bu baax di sant sama doomu ndey bi ma àndal Papa Jean mm. leen sant bu baax di sant sama sëriñ sëñ Abdou Lahad ambassadeur ak soxnaam dem Seyni Bilu Paquet mm-hmm. di sant sama waa mbokk Malika yi suñu dëkk Malika parce que man fa laa juddoo Malika saa jógee Malika jógee Malika. maa gën a juddoo Malika. non ah, loolu lañ siy ñëwaat gën a juddoo Malika su ma. maa gën a di sant Malika montagne. Mhm. yëpp maa leen di sant bu baax a baax sama papa maa ngi leen sant bu baax a baax. sa femme bi nu mu sa sa femme bi nu mu tuddee sax. non Rose Ndiaye la. Rose Ndiaye sa femme d'état la quoi. Mhm. xam nga doomu ndey Rama Soumaré. Mhm. ñooñu su may ñooñu su yaay leen. parce que ma maa ngi. ma defal lu nekk. Rose Ndiaye rama soirée mhm. transitaire bu mag bi rama mooy transitaire bu mag bi mhm. seen ànd boobu yàlla na suñu ñu baax lañ wax dëgg yàlla ba mu leen xamee récc dañuy ànd ànd bu dëggu mhm. te rose mi ngi dolli mi ngi rose kon yàlla leen suñu borom gën a defal jàmm quoi wax dëgg yàlla sama ñaar ñooñu bu ñu fa jógee yaa ngi si dix neuf combat maa ngi si 15 victoires 4 défaites. 4 défaites waaw. Euh, nga nekk écurie la la. Lassana Waraba a waaw Lassana Waraba avant nga jóge avant nga ñëw si Lassana nekkoon beneen écurie bi Pikine. maa ngi woon si ñoom Boy Niang nekkoon. si Boy Niang waaw fa lañ nekkoon quoi. bu déggoo après fa lañ nekkoon xam nga. Mhm. ñu ànd ànd bu rafet. Mhm. de passage maa ngi koy nuyu moog papaam yëpp déggoo. Mhm. léegi dañoo ber suñu écurie daal. ngeen benn seen écurie yaay tëdd fiilu laasana waaw maay tëdd fiilu laasana hmm. léegi lan la lay yoox nga dem doon tëdd fiil ba nga jógee si benn écurie boo xam keneen moo doon tëdd parce que ñun dañoo demoon jàng hmm. ji rek parce que hmm. suñu xam-xam matul woon quoi ñu dem yokk ko quoi wax dëgg yàlla loolu lekk mais amul leneen ci sant cent pour cent Pikine ak deux cent pour cent Pikine yëpp ñu ngi leen sant deux cent waaw waaw waaw parce que ñoo def dara te du bi mooy sa premier combat en tant que tëdd fiil wala non non bëri naa ñaari combat daan naa Petit Niang Cheikh Super daan na. Cheikh Super si si nga jógee. waaw waaw si defet nga hmm. nga jël nag benn xale benn daara la. waaw waaw waaw daan la wax dëgg yàlla moom daan naa hmm. non daanaan la ñëpp xam nañ daanaan la. yow moom jaruñoo wax. nangul daanaan champion la. mais lu lu tax nga jël avance booy bi. parce que dama xam nga booy bi nga jël avance am. non xam naa xam ne day bëre day xeex si. te lu ma gën a neex si day xeex waaw loolu de moom moom bàyyi sa waxu dóor yi ngay yaay dóor dóor Pikine <laughs> laa juddoo syndicat laa yoroo du ma dóor man man Icotaf laa dëkkoon de. saa yi lay reere. champion la quoi xeex kan la ah, xeex wala bëre bi. lu tax xeex bi xëy xëy lu ta xeex bi gën la si neex. non mais lamb ku nekk rek ngay parce que seetaan naa quoi. est bëgg a bi nii nax ko si biir xel moo tax nga naan. non hmm, Malika la de. waaw doomu Malika. Hmm. nga ni gënu laa dëkk Malika. non. Hmm. gënu maa yàlla gënu maa dëkk Malika. nga teg ko fan. ak Seydou Abdou Lahad gënu dëkk Malika. non loolu man du ah, maa ci tontu kay man mii di wax ak yow Pikine laa juddoo ñetti mbaar. Hmm. mbaga nga fa ba léegi. mu kër papa ngi foofu Malika tamit sama papa ñaari kër la fa am. sa kër nijaay ah. sa kër nijaay n'est-ce fan. yaa ngi sa kër nijaay. Malika. non sama kër papa. sa kër papa. Mhm. romb nga ma fa bërkaat démb. romb naa la kay. romb nga ma maa ngi toog maa lay gis. Hmm. maa toog naan café foofu. Malika Malika Malika dafa nekk loo xam ne ni ba ma nekkee xale ba léegi laa fa nekk. mais dama ñëw fii si Tambariñ Derkale fi laa dëkk xam nga. nekk ci commune Jëppal Derkale gars yi di jàppale mais su ma amee laay dem waajee ci quoi. Hmm. lan moo mbooloo. yàgg naa fa nag <laughs> may dem foofu xale bu ndaw laa boobu yàgg naa fa trop. Hmm. mais nag dama gisoon dama gisoon xam nga. mbër yi nekk foofu ni ñu gëmee seen bopp ak équipe bi ni mu ma jigee su may dem équipe ba damay daw rek damay takk sama saak dem moo ma gënoon jigee mais su mbujun laa naroon dem mais après dama xam ne équipe bi gën a jigee parce que su ma takkee ngemb tay ji yàlla ak gën kay moo tax moo ma njëkk a takkal ngemb pour ma bëre man ak rakkam ñooy ànd si laa nekkee grand F mbooloo bu heure bi aw ma fa dara lu may rëccu nag parce que li nekk ci man lu bëri ñoo ma ko jàngal mm. li nekk ci man ñoo ma ko def ci man bu nuyuwaalee Zarko mm. du nuy mobile 2. du nuy fourrière di ko wax ne ñu ngi koy ñaanal ndam tey open press am bi tey la si kanam xam naa fa lañ jëm. di ko ñaanal ndam bu sedd guy di ñaanal góor tamit mu am ndam képp ku am combat ci équipe grand mbooloo rek ñu ngi lay ñaanal nga am ndam. pourquoi nga jël Ziza. waaw Ziza dafa nekk ndaanaan dafa nekk ndaanaan boo xam ne nii tamit kenn du ko weddil tamit ndaanaan la quoi. <laughs> ba pare moom li mu wax rek moo nekk ci moom moom day bëre day xeex. dafa dafa soxor quoi. ku nekk ngi dóor moroomam. waaw loolu la demee bëri xeex. dafa soxor man moom sama xeex bëriwul. sa xeex bëriwul. <laughs> non non bëre bi ëpp te moom day bëre su ma dajee kuy bëre rek man bëre bi day neex. ban moo si a xeex bi wala bëre bi. ñaar yëpp. lu tax ñaar yëpp. non ñaar yëpp parce que bëre tey jii pour buntu am dëgg xeex day am ñaari ndaw bu ñu leen boolee surtout ci bés bu mag. Hmm. day laaj mi wane seen bopp. Hmm. te man moom ñëpp xam nañ ne man combat bu ma am moom dama koy jox gëdd jox ko cër surtout ma combat bii nii. combat bii. Mm-hmm. Oh, bii laa gën a respecté bii laa gën a fonk. bii nga gën a respecté non bii laa gën a respecté bii laa gën a fonk adversaire yi nga daan daje. waxul du benn moo tax ma ne la combat bi xam naa fi ma mën a yóbbu. combat bi xam naa fi ma mën a yóbbu. Mm-hmm. Mm-hmm. yéen ñaar yéen ñaar mos ngeen daje fenn si roq wala dajeegu leen fenn yéen ñaar comme romante ngeen Malika. non fàttaliwu ma ko de. Hmm. romb romb na ma Malika daal. Hmm. Hmm. romb na ma Malika man xamee naa ko am na ay combat dem esat na combat yu bëri Ibamaar yu bëri dama doon dem. lan nga xam yàgg naa ka suivre non ndaanaan la. non ndaanaan ñëpp xam nañ daal lan nga xam si moom. non ndaanaan la mën na bëri mën na xeex. te bësam day neex. ñaari ndaanaan nag buñ dajee loolu day neex. ngeen war a ñu war a bëre xeex waaw. ñu war a bëre tamit ci journée bu mag boobu diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux mm-hmm. journée bu mag la parce que amateur yëpp a fay dajee képp ku bëgg làmb rek da ngay ñëw ci làmb ji mm-hmm. moo tax dinañ ah man de man maay liggéey li ma war a liggéey li mu war a liggéey bu ñu summeekoo amateur yi kontaan ñu xeex mu neex ñu bëre di ñaan yàlla may ma ndam ci kawam ah waaw xam nga ne làmb ja kay ñaari ndamay dugg benn génn wala mat si rek te xam naa ne combat bi moom du yegg foofu moom non non non non. gëw gëw ma sax mu yàgg bay am match nul. du non gëw ma ko de. non dama ko gëmul rek. waaw ah, xool naa ko kay dama xool li muy bëre rek. man li muy ñaari attaquant lañ dañuy tase. dañuy tase kay man sama laam sama laam moom ñëpp xam nañ lu ñu arrière. mën na ci nekk mën na ci am. waaw séntu ci lépp kay. lépp a ngi ci. non moom nag day bëre day xeex wax dëgg yàlla moom seetaan naa ay combat am na benn combat bu ma bëree bu mu bëree Iba Mar boobu dama ko suivre boobu dafa bëre moom dafa zongale waa ji yaakaar naa xaw ma ku mu doon bëreel nag mais bu jour boobu maa ngi woon Iba Mar. ah. ñaan mu jox ma ko man mënu ma am <laughs> mënu ma dara yàlla boo man lépp di ñaan. ah nga daana bi comme tey exemple. ci àdduna lañ nekk xam nga àdduna moom ñun ay ndaw lañ rek dañuy sabablu rek saa su ne quoi di ñaan ci yàlla ak yonent bi mu sutural ñu may ñu wér may ko wér yàlla may ma dem ci kawam man moom saa yi ma demee ci làmb moom wax dëgg damay ñëw pour bëre ci mhm. pour mhm. saa yi moo tax chaque année damay bëre ay ñetti combat mhm. parce que damay bëre damay xeex parce que ñu la fayee sa xaalis da war a wane fulla ak fayda moo tax man mosumaa ñëw ci làmb summeeku ñu ne ma a ah, cim wala liggéeyoo. Mhm. suma ma sumee ko dañ naan tey de gën a liggéey même boo may daan sax man maay bëre. Mhm. combat yu ma ñàkk yëpp maa ñëw bëre def lépp. Mhm. loolu tax mais tamit damay ñaan yàlla yàlla tamit di ma gën a suturaal. mais dégg nga lu mu wax nee na ñaan ñëpp ndam ngeen dugg see mais ndam mi moom moo ko bëgg a yóbbu. ah mais tamit ñun xam nga luy am suba kenn xamul. luy am suba. man de xaw ma ko wax dëgg yàlla. parce que yàlla rek. bi ak sama ñaan. man gëm naa ni incha allah ci kàttanu yàlla yàlla dina ma may ndam. ci xeex ci bëre bi ci lépp ci daal adversaire bu danger nga am de. moom adversaire mhm. danger danger bi yëpp ci ay moromam mais du danger ci man. lu tax du danger ci yow dama ko xam rek. noonu non ko xamee mais mënul nekk danger ci man. parce que bis sama adversaire yu ma bëreel ak ñoom ñu mu bëreel du doon benn te bis bu nekk bëre naa ko bis boo xalaat bu bis bu mag mu nekk bëre naa ko. mais lan nga bëgg wax foofu. non kii dama ko jox cër combat bi dama ko fonk trop. Mhm. combat bi si sama carrière daa lu mu ciy def dama ko fonk dama ko fonk. Mhm. Mhm. danga ko fonk. dama ko fonk trop. moom dégg nga lu mu wax nee na xeexkat la bërekat la ne yàgg na la suivre yàgg na la topp. lu nekk ci man rek moo nekk ci moom. non bàyyi leen seen raayante yi nag yéen ñaan ñëwuñu fi tamit pour raayante tamit. kii at bi bu siflee mbàccum gerte la. at bi bu siflee. mbàccum gerte la bu ñëwul man xam naa damay ñëw. da koy may temps bu ñëwul nga fekk jëkk. non amul temps laal baat bi joxee nii suñu diggante. xam naa ne moom day ñëw wala ma ñëw dañuy daje. loolu loolu de. loolu amul soxla ñu si sikk sàkkal. waaw wax naa la ko sànq dinaa la ñaari attaquant lañ man moom kenn xamee ma moom. waaw dellu gannaaw teg pas arrière moom kenn xamee ma ko wax dëgg yàlla. waaw te max laa yor avancé rek. sama combat yi ma ñàkk lu bëri loolu ma ko ñàkk ñàkkuloo daanaka. Mm-hmm. waaw. kay kuy défendre moo ma jaaxal mais kuy bëri nii. comme ça waaye non wax dëgg yàlla jaaxaluma. saa lan moo jaaxal ci dara jaaxaluma ci moom parce que day bëri day xeex day ñëw. non loolu kay werante ko. expérience kay am na ko ci làmb loolu werante wuñ ko. bañ hmm, laa njëkk xalaat dama xalaat ne combat bi ma doon wër depuis ba may bëre ba léegi instant yi nii sama buntu làmb maa ngi koy soog a am hmm, loolu laa njëkk a xalaat quoi. ah. non yàkkamti woon naa sama combat ak ñu mel ni moom. waaw moom ak ñu mel ni moom. Mhm. non dëgg yàlla Ziza mi sa tamit. nekkul sama nekkul sa vision làmba man la si man la yam déedéet man sama vision làmb jéggi na sama vision làmb mi ci kaw. waaw ñaan naa yàlla dem ba bëre ak ay. Ama Baldé ay Boy Niang. vraiment ba ma demee di man xam naa ni kii moom la parce que fi mu dëkkee man dama fa dëkk ma bàyyi ko ci bàyyi ko ci parce que dama ñëw ñëw naa ba salle bi pour internet ma fekk ko fa ba bàyyi ko dem parce que bëgguma indi ay détails quoi man xamee wuñ ma yooyu. mais loolu du problème sax. non du dara sax xamul tax loolu dara. xamul tax gis nga nit. Malika man dama fa juddoo. dama fa juddoo. sama mag juddoo fa sama yaay juddoo fa. sama yaay dégg ma la sama maam juddoo fa suñu kër gi Malika dégg nga ma. mais bu combat bi gën a jege ci wax dëgg yàlla. damay dugg Malika. moom mi bu ma woowee biir këram mun naa dem. añ ak moom dem. Ziza su ma amoon soxla biir këram sax dama fay dugg. non suñu kër moom doo fa dugg moom. non su ma amoon soxla foofu moom dama fay dugg. booy loolu bu ko sax. non su soxla foofu dama fay dugg de. bul ko jéem non nan la bu ñu la joxee bis bu ñu la joxee soxla. ma wax la benn affaire bis bu ñu la joxee soxla. boo fa duggee gëm naa ni kombaab bu doom non parce que gis nga suñu kër. léegi dama lay lay mën naa la benn affaire. léegi huit fu mu jotee boo ñëwee suñu bëgg gis ñu fay nekk. loolu man nag la ko yàlla may. damay toog suñu bunt kër chaque jour ñu yaa ngi fa teg seen caante fa la ñuy fanaan. dégg dama sekk ak biir kër sama papa sama tante sama yaay ñëpp jàmm. lu leen di neex rek laay dox. kon tey bu ko ma dem kër. man soxla liggéey toog jaamu ci yàlla ñaan ci yàlla laa gën a yaakaar kay dem kër jàmbur parce que tey ji ma tëb dem kër déggoo ma de moom bu fa duggoon nii sax man jour combat mën nga ma jël ma dem këram añee fa ñu dem ma ne la jour combat bi mën nga ma jël si ñu dem këram ma añee. xam nga xam nga xam nga sànq sànq fi nga waxee moo tax ma joxul exemple boobu. comme moom li nga ko waxee mu ñëw malekaat dugg comme par exemple mu ñëw ci saal bi di entraîner. dama ko bëgg wax ne loolu amul problème maanaam moom su ma amoon këram soxla sax dama fay dem. moom maleka amu fa sens interdit parce que mënu ma ko aaya malek saa yu ko neexee dafay dugg saa yu ko neexee dafay génn mais man tamit fu ma bëgg a dugg dama fay dugg fu ma bëgg a génn dama fay même bu ñu tase woon salle di entraîner day entraîner li muy entraîner ma entraîner li xam nga moo tax benn bu dul dara dafa am loo xam ne man exemple laa man exemple laa ci bépp côté exemple laa ci bépp côté moo tax man am na yoo xam ne du ma ko gis na tey ji mën naa dugg salle fekk ko fa di entraîner mën naa entraîner amul lu ma ciy ragal amul lu ma ciy tiit parce que du yàlla du yonent tax yàlla moo ñu saax moo ko saax saax ma mais dafa am yenn yoo xam ne comme ngay dugg salle day indi ay genre benn genre ay affaire yoo xam ne nii te dañ koy moytu te làmb àndul ak violence xam nga tey ji moom mi toog nii di wax suñu ko dafa dugg man loolu leer na dafa dugg làmb la ñu sekk làmb la ñu man ba muy dugg Malika boobu nekk fa ba ma fay juddoo ñu doon xale bu ndaw ñu sang ma fa nekk fa waaw nekk fa. mais tey jii bu combat sama à chaque jour bu ñu ñëwee suba la sama combat maa ngi dugg Malika. damay sama ñaan soog a dem suñu kër. non Malika da dugg fu ko neex amul sens interdit Malika amul sens interdit fa la dëkk fa laa dëkk dañ fa am kër ñun tamit ñu am fa na dugg fu ko neex na génn fu ko neex ñun xam nga lan moo ñu boole stade arène nationale ci biir géew bi foofu lay safee mais par non violence ay violence yi nii ci mbedd meeg yooyu noonu non man aw ma temps boobu même këram di ma koy wax nii rek xam nga. Eh, neexal lekk mais xam nga man ñun toll nañ foo xam ne ni tey jii ñun xam nga lan lañ am entraîné teel a tëdd lekk ba suur suñuy waajur ñaanal ñu dem bëri ji. non ci biir géew bi lay amee ci biir géew bi. xam nga ci biir géew bi lépp luy am fa lay amee parce que arbitre moo ñuy boole. boobaa lu ñu war a def foofu dinañ ko fa def. mais pour mbedd meeg yeneen nii loolu loolu mooy loolu loolu dafa ñaaw sax loolu moom du ci am xam naa ne moom loolu moom du ma sa am saa yi na dugg Malika heure bu ko neex génn heure bu ko neex loolu dérangé wu ma. lépp mi ci lépp mën na ci am xaar ci lépp. non du loolu de xamalal c'est moom jantal la ko. jàpp jàpp jàpp karaw seen da ko aaye. non du ma jàpp karaw. mën naa am sax ma dindi ko balaa combat ci laa waxtu ndel laa waxtoon ko yooyu taxul xam nga kii coxato booy xam nga kii benn coxato gën a dégg quoi. coxato booy saa yi. daa mel ni nuru ko de. gis xanaa xalaat moom tamit dafa mel ni nuru ko de. Oh, ay maa ngi sama jarbaat bi seet. sama jarbaat moom ma ñawal yi moom Cheikh Bëgget maa ngi sant baax non dina la ñawal. dina la ñawal incha allah dina la ñawal mais tamit xam nga xam nga tamit Gaston suñu papa la faw ñu ko sant waaw maa ngi koy sóobu bëre xam nga fi laay fi laay fi laay nekk fii lañ may fayal saal fii nii boo wàccee nii donc Gaston doomam ñooy ànd xaali man kooku lay sant mooy mooy sama mooy sama promoteur maa ngi koy sant bu baax man magan sant xaali ak ak fii la ne quoi parce que bàcc mooy defaral ma makan ay room maa ngi koy sant bu baax ñoom parce que ñoom ba ma nekkee si benn instant quoi toloftoo ñoo ma jël yóbbu ma maris may internet wax dëgg yàlla ñooñu moom aw ma seen fay bàcc maa sàmba almaami lii xaali mee mais père gas di la ñaanal yàlla jàmm yaag makan waaw man maa ngi ci makan kon bàyyi ko moom mu nekk feneen man ma nekk ci makan garaawul waa di gërëmaale père Gaston bu baax a baax parce que man tamit maa ngi koy ko a bëreel quoi maa ngi doog a bëre ci journée non loolu dëgg la déggoo combat bi déggoo fi ma ko teg xanaa hmm? combat bi sama buntu làmb la maanaam sama buntu tekki lañ ma tegal nii sama buntu tekki lañ ma tegal nii kon ba léegi tekki foog ma tekki non tekkee gu ma de instant moom tekkee gu ma moom. gis nga làmb nii la xam nga si at mi man. su ma neexoon man ne du ma bëreeg moom. xam nga loolu. neexoon ma ne man du ma bëreeg moom. parce que combat du benn dara du benn mais xam nga man si at mi man xam laay bëri. man tolloo ma fi baay bàyyi kenn xaalis bu ñëw damay jël jox sama yaay ak sama papa man nañ kontaan man ma yaay ak papa buñ kontaanee rek man mooy loolu waaw xam nga. ñoom ay jeune lañ parce que magante wuñ dara dañuy bëre pour defar dimbali seen waajur damay bëre pour dimbali seen waajur tey dama koy sant bu baax moom tamit daf may sant bu baax parce que su ma taxul woon bëre moom du am avance moom su taxul woon bëre moom du am avance. Mm-hmm. làmb fu mu toll amul kii moo raw kii jamono ji làmb ji mooy loolu amul kii moo raw kii kii moo raw kii da ngay ñëw rek bëre mm-hmm. heure bu ñu waree yéeg yéeg loolu nga sant. mais tey moom buntu tey kenn la de. buntu waaw mais mais mais normal parce que Ziza la ñuy bëreel déggoo ma de Ziza la ñuy bëreel. a leneen. ah leneen la booy bëreel moom noonu ngay def ku ñaan yàlla tey jii moom réewam ñaan yàlla bëreel Ziza parce que parce que tey non teguma ko xel de barki sëñ Abdou Lahad teguma ko xel parce que tey bëreel Ziza. non li muy wax dëgg la. bëreeg Ziza tey boo ci génnee dangay am leneen man su ma si génnee lii damay seetuwaat samay morom ah non c'est c'est c'est normal bëreeg Ziza bés la parce que man damaa def la nga xam ne tey jii war naa ku ciy bëreeg man rek mooy lool man xam naa ku ma ciy bëreel mooy la parce que du yomb noonu la. waaw. dégg nga lu naa li wax li mu wax dëgg la. li mu wax dëgg la de. Mm-hmm. mais ñaari at ñaari adversaire yi mu mujjee bëreel moo ko booleeg man. Mm-hmm. ñaari adversaire yi mu mujjee bëreel rek moo ko booleeg man. léegi dafa am kenn ku nekk si ligne bi. mooy mm. le grand communiqueur Mbaye Toldo moom mi si diaspora bi mais day teewal làmb saa su ne fu mu nekk Mbaye Toldo ziar nañ la. waaw Aboubacar maa ngi lay ziar frère maa ngi lay ziar lu bëree bëree bëri doo def sa wàccuwaay du ñaari champion yooyu toog foofu. Mhm. kenn ki di Ziza. Mhm. di frère ci man. Mhm. kenn ki di Tmax moom it di frère di champion ci làmb. tey diggante bi ñu boole ñaari champion ñaari ndaw nan nga ko gisee. waaw euh, dafay wan ni rek euh, Gaston Mbengue. mi ngi def liggéey bu am am solo ci làmb. parce que. Euh, dafa delloo si loo xamante si nii maanaam dafa commencé jeex ci làmb ci benn côté. Mhm. mooy tey ay champion yoo xam ne tey làmb daf leen bëgg ay ndaanaanu làmb lañ. Mhm. loolu dafa am solo ci promoteur. Mhm. parce que làmb du ñu ñuy coow rek. mais am na ci ñoo xam ne léeg léegi ñu nekk jafe-jafe. waaye boo xoolee seen permanence ba nga xam ne ñii ay ndaanaanu làmb lañ. mais làmb moo gaaw a suul ndaanaan. mais expérience bi Père Gaston. dañuy def ci ko ci làmb. di jël ay mbir. ba pat di leen tëggat. Mhm. di leen di leen tëggaat. Mhm. kon kon am na liggéey bu rafet rafet bu muy def ci làmb. Mhm. parce que ñaar ñooñu toog foofu. làmb dana desee xam tuuti ba buuba. làmb da leen desee xam. waaw làmb daf leen desee xam tuuti. ndax tey boo ñëwee ci ki nga xamante si nii mooy Tmax. mi ngi nekk ci Grand mbooloo. loo xam ne suñu juumul mi ci onze combats. def six victoire am ci cinq défaite ay mhm. yomb ci xale yi nga gis ku ci def onze combat tey da gis ko def cinq combat wala six combat rek def boppam def boppam benn champion dëgg donc boo ko fàcc man bëri ko yombatul ci làmb mhm. waaye ki muy jàkkaar lool Ziza mhm. Pape Bouba boo demee ci VIP yi am na ñoo xam ne sax amuñu fa quinze victoire ñu ngi ci dix combat quinze victoires quatre défaites mm-hmm. ci buñ juumul mm-hmm. tey loolu yóbbu ko ci espoir boo xam ni am na lu mu def ci làmb jeexal ay moroomam mm-hmm. combat quatre défaites quinze victoires loolu palmarès la nga xam ne kaw bëri ñu ko fa def nit dégg na daal it bëri bu dix combat dëgg la moo waral xale yi seen carrière bëri ay combat yoo xamante si nii macha allah buñ ñu ñëwee ci làmb mu fees andi mbooloo benn instant dootoo leen dégg. Mhm. li waral loolu. Mhm. moo lay wax ni frustration dafay am des fois ci xale yi. dañuy mhm. def leen war lépp mais des fois làmb dafay génn ay phénomènes yoo xamante si nii. doo xam ci yan circonstance la leen làmb mën a favoriser teg leen seen kaw. dëgg la bu waree bëri seen i morom dañ leen di daw. mais façon bi ñu leen dawee koo wax mu ne la non maa daan diw diwoo ko daan te fekk yow ki nga wax maa daan diw diwoo ko daan combat yi mu def defoo ko. léegi ñoom dañuy dem ba dootuñu mën a bëri seen i ñu leen war a may sax leen a daw. Mhm. ñu ñu mayee sax ñoom ba sonn mujj dañuy mhm. mais lamb bu neex la. Mhm. lamb ji doy waat. lan ngay xaar si lamb ji. ah lan ngay xaar si combat bi. non bu neex ndax xam naa ni moom xam nga dañuy wax ni euh, euh, dëgg la ñun lamb lañ ci nekkal nag waaye day gën a neex. tey Zouza moomu toog tey suma frère la. Mhm. tey mën naa ne ñoo foowandoo. Mhm. mën naa ne ñoo fubalandoo. mu mhm. nekk espoir boo xam ne Pikine tey bi mu déparé di fubal di jouer numéro neuf. jouer ay see yow. nekkoon yaakaaru ay see bi. daan dugal bii bëri woon supporter daan na foowee làmb comme ñun ñëpp jeune Pikine yi. man ñii gardien de bii laa. mais foowee naa làmb foowee naa mbapat ñun ñëpp Pikine ku fa juddoo rek ak métier boo mën ci am di nga yaay xool lan ngay choisir nga def ko. Mhm. parce que dugub la dafa metti mhm. donc bu bëri ay mbapat def ci ay jaloore supporters yi topp ko mu ñëw ci aral def ko def ci tuuti fa yoo xam ne daboon na ko ci. Mhm. xam naa li mu mën xam naa li mu kap. dëgg la mais kontaan nañ si bu baax Toldo Mbaye Toldo. maa la gën a kontaan. di am si yow mbégte kontaanuma. maa la gën a bëgg ndax yaa ngi def ci làmb liggéey boo xamante si nii macha allah muy ci Instagram bi. Mhm. muy ci YouTube bi. Mhm. tey Gaston mhm. xam na ne am na liggéey bu mag a mag boo xam ne def na ko ci làmb. tey page Instagram Gaston Mbengue kenn du ko wax. te duñ wax Aboubacar. dëgg la. ñu ciy def ay live di wax ak gars yi tamit nañ bu baax a baax. Mhm. Gaston production. Instagram bi. Mhm. ah mi ngi ci YouTube bi. Mhm. parce que tamit bu ngeen def ay liggéey jëli mbër yi. dafay baax ñiy seetaan di aimé. di abonné. parce que nit ki ay interview. dagg ay yitteem. bàyyi léppam ngir topp passion am. waaye passion bi tamit dafa am lu ko jiitu mooy ngir bëggal la yow mi nga xam ne yaay soppeem. donc bul di fàtte à chaque fois abonné wu di di di aimé. a baax. mais Ziza maa koy bëgg lu bëree bëri sama doom yaay boobu. jërëjëf jërëjëf champion nga nag ñun làmb la ñuy dund. Mm-hmm. ñun làmb la ñuy dund quoi. Mm-hmm. waaye wax rek. Mm-hmm. mais dama la euh, Toldo après naa la jox numéro ñaari mbër yëpp nga jël leen live Instagram incha allah. incha allah waaye damay wax teew ak si teew ko def ci boppam nag. jërëjëf mm. <laughs> la ñuy doxee. defaral na leen pour làmb njaboot defaral ko. loolu kontaan ci yow frère. jërëjëf ma amoore. incha allah jaajëf waaw. Ziza dégg nga bay toll doo wax ñu jaar fa tëjaale fa émission bi rek incha allah. nit moom boo xamee rek li nga xam si moom rek ngay wax quoi. parce que bu njëkk ba problème boobu laa amoon man arbitre bi musaan siffler rek damay dox sa kaw dóor la xam nga ñëw dama doon def loolu noonu quoi ku taxaw sama caméra yaakaar maa man xam nga mais tamit yàlla mi ngi may dimbali quoi boo ànd ak ay ñoo xam ne ni seen xel dinañ xalaat lu bari di ko wàññi ci làmb parce que làmb fooloo quoi mais boo ku daanu rek ruus wax dëgg yàlla. waaw waaw. xam nga 200 pour cent ñu ngi leen sant bu baax suñu pàppa yu ko kii quoi ñu ngi leen di jàpp mu gënoon. yàlla doole ñu quoi lépp luñ ci bëgg rek yàlla suñu borom defal ñu ko quoi wax dëgg yàlla di santam 100 pour cent Pikine bu baax baax di ñaanal yàlla soq yàlla na ko suñu borom may ndam tamit quoi parce que soq ñun ñu ngi sa ginnaaw quoi yàlla la suñu borom may ndam yàlla mu yore ndamam di ko joxe yàlla na ko yàlla may parce que suñu xarit la te liggéey nga liggéey bu tax ñuy liggéey liggéey nga ko kon yàlla na la suñu borom defal jàmm ko wax dëgg yàlla xam nga euh, sama mama rama rama transitaire bu mag bi mag bi moom Louis Ndiaye ñu ngi koy sant bu baax di leen sant bu baax ñaar ñooñu bu baax ak jaari dafe borom Espagne ak boroom këram ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant sama doom ndey papa Seri bu baax a baax maa ngi sant nag waa Tamboy waa Tamboy maa ngi leen sant bu baax a baax ki su mel ni Mami Ndiaye jaari say Ali Ndiaye xaarim Jaxaane Alsan Seck Maguette Ñang xam nga Yaya Diak Fatim Dioum Penda Saw xam nga jaari say Sukay Juma maa ngi leen sant ak Binta Mbaye ah Mati Mbodj bàyyi ma kéet yéen ñëpp maa ngi leen di sant waa groupe Tambooy parce que aw lu dul yéen ñoo fawandoo ak Ndeye Samb borom Côte d'Ivoire maa ngi leen di sant bu baax yéen waa Tambooy ak ñoom Aliou Ndiaye maa bu baax ku ci mel ni grand père Doumbia maa ngi koy woo bu baax baax mook Ibou Nagoro xam nga grand père yaa ngi góone Doumbia ah? sama wéefi gisaguma ko nag maa ngi leen di xaar yéen ñaar parce que aw ma lu dul yéen chaque combat ñu jàpp si man parce que dañuy sonn ci man fu mu su ma amee combat nii jour ñu toog def li ñuy def ñëpp di ma seetaan kon ñooñu aw ma seen fay ak Cheikh Cissé ah sama papa Mouhamed Diallo séeri mami maa ngi lay woo bu baax papa combat bi sa papa Victor combat bi sa combat la may àndal ñi nga xam ne mbapat ba léegi maa ngi ñoom ñuy ànd waaw mais Badou Gueye ba oustaz Moussa Fall parce que man Badou Gueye ak Baye Ndiop kat kàppo bi fii te du ma tudd njagañaa njagañaa mooy doomu sëñ Modou ñaa mook buggéey njagañaa buggéey maa ngi leen di sant bu baax njagañaa ak buggéey aw ma seen fay El Capo ah ak buggéey ñaari garmi yooyu maa ngi leen di sant baax Moussa Ndiaye Khady Ndiaye maa ngi leen sant baax ak sama doomu ndey naar naar borom géejaay nga xam ne lu ne la may defal yow géejaay nga dëkk mais lu ne nga may defal yaa ak Moussa Ndiaye yéen ñaar moom waa waay moom xam naa ne mbër yi fa nekk moom dina leen bàyyi parce que yéen <laughs> yéen ñaar mooy loolu ak Khady Ndiaye ah, maa ngi sant ñëpp di sant papa Jean bu baax. papa di sant Bira Babacar Furtado Malick Furtado maa ngi leen woo yëpp ak sama yaay Awa maa ngi leen woo yéen ñëpp parce que ñu aw ma lu dul ak sama nijaay Papisco maa ngi leen di sant di leen bége di sant ñëpp ñëpp di sant Sita booy Sita. Sita Sita bu ndaw doomu ndey Sita ah, ak Pape Samba bu ndaw Guèye xam nga Ibra Pape Samba góol bu mag bi maa ngi leen di sant yéen ñëpp waaw. waaw pare naa waaw su dee tamit wax nañ ci dara. bëri waaw non waa ji kii non. sama mbokk maa ngi leen di woo baax sama mbokk saraxule yi di leen wax ni. gërëm laa mujjee gërëm xaw <laughs> foog ma boole gaal sama mbokk saraxule xam man dafa sob quoi instant mi ngi jéem a dugg fu nekk nag bàyyi ko mu gërëm tey suba man ma xam nga li ma la maa ngi sant yëpp toog fii te du ma sant sam papa Aziz Seck Malika te xam ne yaa géré ak montagne maa ngi koy jaalal si turu waa montagne yëpp sam papa Aziz Seck ak sam maa ngi leen di sant bu baax papa Aziz Seck jibi Ablaye Seck maa ngi leen di woo bu baax a baax ak sam papa Njugo Sawan ah. moom nga xam ne alalam lépp ci Malika la ko def kon nu ko waa Malika yëpp jàppale Njogu Saw maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di santaat sama sëriñ sëñ Abdoulahat ambassadeur di ko santaat bu baax a baax ak Serif Mahfous Aydara Serif ay dara sama papa nga ak Serif Sidaat Aydara mais Serif ay dara kenn di yow kenn di yow kenn di yow waa Bignona waa Bignona nii rek Rose ñëwul non Rose Ndiaye <laughs> yii ma koy tudd Rose Ndiaye moom saay femme d'état yii sage-femme d'État kooku foog ma koy sant moo ko Rama Soumaré Rama Soumaré mooy transitaire mag bi ak Rose Ndiaye maa ngi leen sant bu baax ak jaari dafe ah borom Espagne maa ngi leen sant bu baax bàyyiwuma kenn ñëpp maa ngi leen sant képp ku may bëggee rek waa diaspora di wax ni tamit Sénégal dëkk bii Cheikh Ahmadou Bamba dafay wàcc Malick Sy ñoom ñëpp kenn waru ko mun a taal man génération ak képp bu leen xuloo tey jii Sonko bu faloo doo gis benn doomam bu gaañu wala kii Macky Sall doo fi gis ngir yàlla war suuli bu ñu yabal kenn ñoom nañ leen bàyyi ak seen wax ñun suñu yoon nekku ci non à la parce que tey ji ni lañ fi defoon bu jëlee fi ab Ablaye Wade di xeex tey ji anañu ñoom ñoo fi bëgg jëlaat Macky kenn xamul lu bëgg ngir yàlla war a suuli temps yi dee gi dafa bëri kenn xamul la moo dal bu dee nag bu dee nag Sonko ceew la wala Macky Sall ngeen wax ñu ñun dañoo sonn parce que samay rax nangatuma ñu génn mais ngir yàlla war a suuli coow li dafa doy ay mars mars yi dañ cee doyul sëkk sëkk ak barke xam nga ñun lu ñu soxla ceeb beeg duulin xam ne nit ñaa ngi sonn am na ñoo xam bu ñu dimbali ñu si moo gën ay mars ngir war a suuli ngir jëm Seydina Mohamed xanaa ngeen ñaan si yàlla dëkk bu nekk ak tàq ay lu am Malek foofee du am fii Sénégal Sénégal moom loolu leen mënti jéem du fi tax dara du fi am di ngeen fi dégg na ay dafay mais dara du fi am parce que dëkk laa dëkku Cheikh Ahmadou Bamba la maam maam Maodo ngir yàlla war a suul dimbal leen ñun coow li rek lañ si mën coow li coow li na solo saa saa dem na bu ñaan dafa ñëw il faut ñëw man damay romb foofu yegg foofu sax mais naa dugg Gàmbi Gàmbi laay dugg Gàmbi dëkk Adama Bar li mhm. aayoon Casamance yëpp ñu ngi biir Gambie Yaya Jammeh moo leen fa dugal <laughs> waaw léegi nag maa ngi woo ñi nga war a nga xam ne ñoom war a jàppale ci combat bi di woo DG Port bi ah. Mhm. di woo DG Port bi Mbaye Bey ñoo jàkkaarloo kër ma nag moom. Mbaye Bey Mbaye Bey Ababacar Sadikh Bey waa ñu ngi koy woo mu jàpp ci combat bu baax. di woo Birane Ngom rakk Farba Ngom moom tamit ñoo bokk ko ñu ngi koy wax mu jàpp ci combat bu baax quoi combat bi passé moom gis nañ ñu ngi ci jàppee di woo Petit Bàcc jëppal di woo Signor xam nga di woo Amady Faye di woo sàmba Sall tamit Samba Sall ñu ngi koy woo mu jàpp ci kombaa bi baax a baax xam nga di woo suñu papa Pape Diallo suñu papa Pape Diallo saa yoon amee combat xaalis bëri la ñuy may ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm waa jëppal derkale commune bi maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di woo waa Malika ñu ñëw jàpp ci combat bi baax di woo waa Pikine Cité Marine derkale di woo waa Grand Yoff xar yàlla Grand Yoff Arafat Sanzala bi maa ngi woo ñëpp ñu jàpp ci combat bi di leen wax ne seen doom mooy bëri te ak combat bu am solo la am nag foog ñoom ñu ñëw jàpp ci combat bi dooleel ma kàttanal ma pour ma mën a dem bëre di ñaan yàlla yàlla may ma ndam ci kaw Ziza ndax ma mën a yegg fi ma jëm ah garaawul man am na nu muy demee sax ma jaar fële Ziguinchor Colobane muy demee ma jaar fa su ma demee Gambie mhm. jaaraale Joal Joal foog ma dugg fa waaw foog ma dugg Joal.

kooku suma xarit la suma doomu ndey tuuti yaa ñu koy wax Awa Sara borom Espagne di garmi di garmi pire koo xam ne dafa bëgg yaa man boo bëggee sa yaay rek dama lay bëgg yow jàmm rek nga am parce que sa yaay dalaa ñaanal yow tuuti yaa ñu koy wax Awa Sar yàlla na la suñ borom defal jàmm man soo ma bëggee rek bëgg naa la ndax suma doomu ndey nga di la ñaanal ñëpp jàmm di sant sama waa ko ñëpp di sant sama adversaire bu di ko ñaanal yàlla wér gi yaram ak gudd yàlla na yàlla may ndam ci koom yéen itam leen wax ni dans la vie parce que tey jii mën nga gën a xam mais tey jii da ngeen yemale te loolu mooy àdduna xam nga àdduna mooy da ngay yemale parce que kii tey jii mënu ma xaa def la nga xam ne si làmb ji la làmb ji bu arbitre bi sifflé combat yëpp foofu la affaire bi yëpp foofu la di ko ñaan wér gu yaram a gudd fan yàlla may ma ndam ci kawam te yàlla nañu yàlla suturaal maa ngi lay ñaan ci baxam waaw ñun ñëpp waaw yàlla moom moo yore ndam ma parce que xam nga gis àdduna àdduna àdduna chaque jour yàlla wo wone fi misaal wala xamoo loolu hmm. Sénégal ba muy fubal gars yi mu def ñaari mas gars yi dañ ñëw di jël coupe bi gars yi ku nekk taxaw yore say rajo di wax mais fa lañ mujjee taxaw naan noo diw kenn woowu leen parce que yàlla moo ne lii mooy am yàlla bu ne lii dee am kenn mënu ci dara yow li am suba da xam kon yàlla nañu yàlla defal jàmm rek yàlla nañu yàlla suñu boobu ñun ñu fi nekk ñëpp yàlla doole ñu muccal ñu ci seytaane ak li nga xam ne moom ci dëkk bi yàlla nañ ci yàlla muccal daal nañuy wax lu jub di wax lu jub di jaamu yàlla yàlla yàlla defal ñëpp jàmm parce que dëkk leneen xaju fi jaamu yàlla rek moo fi am parce que dëkku Cheikh Ahmadou Bamba ak maam Maodo Malick jaamu yàlla ñun soxlawuñu borom ñaari deux pièces yooyu dama koy wax mu leer suñu yoon nekkul si yooyu ñun ay góor lañ ay jantal men lañ dañuy ñaan yàlla takk si soxna yu rafet yii la ñuy ñaan yàlla pas ay kuy sol tubay na ñu dimbali nag yéen dimbali leen ñu de ah dimbali leen ñu parce que lii yëpp yéen la dimbali leen ñu góor da ngay noonu wax dëgg góor da ngay def yëfu góor góor da ngay def yëfu góor ñu xam ne yow góor nga gentleman nga. wallaay parce que dëkk bi dafa yàqu. man suñu jàq koñ boo fa ñëwee sol noo war a sol dama lay naan ay ci biti parce que maa koy bale. dañuy def yëfu góor. nañ ji. ñu xam ni ñuy waxee. jigéen ji def yëfu jigéen góor di def yëfu góor. yàlla ñu yàlla muccal. ci loolu noonu dem ci yéen dëkkee Gana Gueye ñu ngi lay sant bu baax. ci li nga def geste la. yow noobul nga kon ñu ngi lay sant bu baax yow Gana di defal ñëpp jàmm ah. waaw sama staff laa fàtte staff bi maa ngi woo ñëpp xam nga ñu jàpp ci combat bi Samba. xam nga Simon Simon Talla Diop maa ngi maa ngi woo ñëpp daal maa waale woo ñëpp ñu jàpp ci combat bi daal. Mhm. gisaguma leen. waaw ah. mhm. ah, man maa ngi bëgg bëggee gars yëpp ah di gërëm gars sama naar ñi ma àndoon ñoom islam gars yi nekkoon si caméra bi ah, ak waa diaspora bi. ñoom Sakho Béri comme toujours ah Toumani Serigne Diour gars yëpp ñu ngi leen di bëggee grand Nasa Diouf waaw grand Abou Diémé yëpp bu wér si foofu ñëpp laa maa su limee Diouf Cheikh Rasoul Mbaye Fall Diop ko wax encore une fois la jubóo la sa jabar waaw mais lay si jabar te le 19 juin boog du moins fii lay doon ah diggante Balla Gaye 2 Gris Bordeaux premier face to face ngeen amaale si deux grands yi amee ah, teg leen ko fii teg leen ko fii aca ah yéen ñaar ah ah cum ah ngeen di peesante ngeen di peesante ma koy wër ndomba. muy teg fii ma koy wër ndomba maa ngi xam sama los kenn du ko laal. gars yi dañuy peese mais. Gaston production. Gaston production waaye. jàmm si Gaston Production présente. Gaston Production, le Don King de l'arène sénégalaise, organise un autre grand choc de rêve, le choc des chocs, le choc des titans. Attention, Balla Gaye 2, le lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2 qui donne Double Less, Balla Gaye 2 ki ne woon man xaalisu làmb la ñu mëngente ah mooy daje kan Gris Bordeaux ki donne le tigre de Fass, qui donne Mbaye Guèye, qui donne Tafa Guèye, qui donne Fass fa làmb mbokk yi loolu dinañ ci tëgg ndënd ba ndënd xar